ana magu Medina yee yéene Medine. salaamualeykum wa rahmatulah taalaahu wa barakaatu Medina TV tey ñu ñëw fii ci biir suñu ci seen émission waar wi tey waar wi ñu dalal gan gu mag gan gu siw gan goo xamante ne ñëpp bëgg nañ ko teg bët dégg nañ ko waaye xamuñu ko Ajaratu Fat Fall ñu gën ko xam ci Bin Fall Bin boo ko déggee sa xel day dem ci El Hadj Keita l'enfant chéri Médina moom mi nga xamante ne moo ko woy siwal ko fësal ko biin Fall moom la ñu fekk si tey fii Soumbédioune di terre bi nga xamante ne bokk na si terre yi nga xamante ne moo fi gën a moo fi gën a siiw fii ci biir ci biir ci ñu ñëw fekk fi sunu mbokk yi sunu yaay yi nga xamante ne ñoo fi nekk di daan seen doole boo fi ñëwee gis nga xeetu liggéey yëpp boo ñëwee di nga fekk jaaykatu classe yaa ngi fi jaaykatu defarkatu motoru gaal yaa ngi fi ñëpp ñu ngi fi ñu ngi ñëw léegi ak seen émission waar wi ci gan gi Bin Fall kon salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu waar wi ci biir Médina TV muy sunu deuxième numéro ñu ñëw fii tey fekk ci sunu benn yaay bu ñuy wax ajaratu Fat Fall ñu gën ko xam ci Bine Fall Bine Fall nag boo ko déggee sa xel dafay dem ci l'enfant chéri de la Médina mooy El ci woyam bu am solo boobu te nag ñu ñëw fekk si fii sunu yaay Bine Fall nga xam ne mën naa ne kenn dootu ko présenté fii ci biir ci biir réew mi bu ko defee rek dañuy tàmbali waxtaan bi ak moom ak yëretu Fat Fall mu gën ko xam ci Bin Fall borom maynees bi bul ma jege borom Bin Fall may mu tuuti seen yaakaar naa loolu xale yi min nañ kër ga sax xale yi dañu koy foyee Bin Fall ñu ngi lay nuyu bu baax. lay ngi am jàmm. sant bu yaa xam te woon nañ la gis de yaa xam te woon nañ la gis lool. tey nag li ñu fi andi mooy won Sénégalais yi waaye won waa Médina ñi nga xamante ne xamuñu woon ñu découvrir tey ne kii mooy Bill Fall nax bu buñ la xoolee jël ci référence Bill Fall kañ nga commencé jaay biir suñu mbéjum. kii yàgg na moom sama doom bi ay ñaari at la te léegi sëy na sama doom bi léegi wala am ay 22 ans 23 an kon xam nga loolu yàgg na bi commencé jaay fi boobu sama doom bi at la am wala at ak genn fi laa commencé fii kafe laa njëkk jaay nag kafe Touba laa njëkk a jaay. maanaam def nga fii 22 ans. war naa ko fi def moom na ko sax. 22 ans nga toog fii di jaay waa Bine Fall Bine moo ko andi. El Hadj Keita kay ah, moo ko moo tuddee Bine Fall. moo ko tuddee de. ah man de damaa yaakaaroon ne lañ lay woowee noonu rek mu ñëw mu ñëw woy ko noonu. waaw Bine lañ may woowee moom mu ñëw dëggal Bine bi. moom woy ko. maanaam moo ko way mayonnaise bi bul ma jege bin faal yokkal ma tuuti frite waxul frite waaye frite la wax El Hadj Keita ñu ngi koy nuyu de passage l'enfant chéri de la Médina jàmbaar jooju di ko ndamoo nag di ko bëggee di ko di ko di ko sagoo bin faal liggéey bi metti na. waaw loolu noonu man 7 heures laay xëy. 7 heures du matin. 23 heures laay ngay xëy wàcc 23 heures 7 heures du matin boo xëyee looy def. day dem marché su ma jógee marché ñëw ñëw génne bagage yi raxas raxas ba pare soog a boyal soog a commencé nag client di ñëw may saaf di jaay ba 11h midi ma togg sama sebon may togg sebon bi yow da nga waroon teel a ah, kon biin Fall yemul rek ci ay defal ma frite ak mayonnaise ak salade ak yooyu sebon da nga koy def. sebon yu baax lay defal. sebon bi moom ban heure la. midi une heure. li ina day fekk mu pare dañu ñu defal la jën yu baax sobon bu baax lépp la yam waaw Bine ñun dañu bëggoon xam secret bi lan la ah, mooy Bine Fall depuis un certain moment fortune biir Médina rek dañuy naan Bine Fall bin Fall bi li ngay jaay la wala Bine Fall da nga am ñaan wala dafa am loo fi siw ba ba nit ñi di ñëw biir Fallou ñun ñun dañu bëgg a xam lan la ndax secret bi man it ma jox ko sama sama sama sama sama mbokk yi nga xamante ne dañuy jaay Fat Fall bin Fall di ñëwoon secret bi lan la loolu laa bëgg a xam lan la njaay njaay mu set la wala wala wala wala wala am jàmm bi nga am jàmm la wala lan la. togg lu baax rek la ak yéene togg bi moom boo si amee yéene rek di ko togg ba mu neex day jàmm loolu rek mooy secret bi. waaye yow rek da nga fi jaay lu jëndi. waaw man rek jaay ma fi jën waaye ku nekk mu ngi jaay war sa waaw waaw waxuñu secret ba léegi lan la de bin bi foog ñu xam lan la tey. ak jën bu bees bi. jën bu bees bi mooy secret jaay bi. nu ngeen def ak géej gi ak jën yi loolu yaakaar naa jaadu na ñu wax ci ndax it léeg ñu dégg ne gaal yu mag yi ñii mbaal ñoom ñooy xañ gaal yu ndaw yi jën ndax yéen loolu euh, yëgu leen seen bopp yéen tamit. yéen tamit bokk leen ci impacté yi par rapport ak euh, gaal yu mag yi jën yi nga xamante ne dañu dañu koy mbaal ba ba gaal yu ndaw yi duñ ci mën a jot. waa jën bi moom taay moom seer na trop sax seer na seer na ndax jën bi fi mu ne nii li ñu doon jëndee ay quinze 15000 17000 taay yi 23000 la ñuy jëndee man dama toogoon sax ne damay toog ba jën bi am ndax tàmm naa jaay clients yi yenn prix yi tàmm naa leen jaay yenn jën yi mais mënu ko parce que clients yi lañ may woo à tout moment dañ may woo. ñëwal jaay lu mu jar rek xoolal noo ñu jaayee nga jaay moo tax ma ñëw forcé jaay mais jën bi dafa cher. cher waaw jën na amul ndugg bu sew bi dara amul temps yi dara amul dara marché bi mais client yi bëgguma ñu may woo ma leen di laaj yi ma bëgg rek ñëw di jaay boo amul tey suba di nga am loolu mooy jaay. Euh, jaay mi cher na jën yi tamit cher na ndax yaa ngi ci yëg sa bopp bi nga waaw maa ngi maa ngi sant lu wér waaw. yaa ngi ciy faj aajo yëpp. waaw bu yëpp su ma matalewul lépp am na luy faju am na luy faju dégg naa biñ faal affaire yi dox na de dégg naa biñ faal affaire bi xaalis bu baree ci am. waaw sant rek. Ah? sant rek sant rek. sant nañ sant dañuy sant rek. mi ngi ñëw. dañuy sant rek. yal na yàlla defal la jàmm. biñ faal sànq dafa am lu am solo loo ma wax diggante secteur. ngay xëy ba 23h naka ngay dundee diggante 7h 23 ak sa vie bi ngay am fii ak sa vie wu famille naka ngay dund naka ngay mën gérer loolu. waaw xam nga man fi ma nekk nii maak sama doom ñoo fi nekkoon sama doom bi dafa sëyi dafa am jëkkër sëyi Maroc moom Maroc la nekk fi la tabaskee sama yaay mu ngi ñàgg fa la dëkk mais weekend nii su ma jaayee ba weekend aw ma xew dew ma fenn damay dem sama yaay weekend samedi si nguddi nii comme tey su ma wàccee am na oto bu ñu jël si dañuy dem fanaan foofu ak moom yendu fa suba ba heure yi ñu ñibbisi maak sama sœur wala sama frère yi ku bëgg dem rek ñu ñibbisi su ma ñibbisee am na sama benn frère bu ma nekkal ko ma nag moom ñooy nekk chaque jour moo may wéttali. Mbine Fall ngay sunu wayjur bu baax di jàmbaar wax dëgg fa la di ci ci ci gox yi nga xamante ne moom lañu ñu dëkkee ñun ngay ku ñu ràññee. une fois ñu gis ne wax dëgg fa yàlla dañu nekk jamono boo xamante ne ndaw ñi dañuy xeeb liggéey te bari na ku ñuy seeti nga wax ñu ci li nga jàpp loolu ngay jàpp yàlla defal la ci teraanga ana lan ngay wax ndaw ñi ak ñi nga xamante ne dañoo toog ci biir kër yi te defuñu dara ñu dóor waar liggéey daal moom mooy liggéey mooy pay boo nee sama jaay bii naa fexe ba am si kër wala naa si dem màkk yàlla dina la sa bett yóbbu la màkk baa nga am si kër man daal sama mbokku jigéen ñi dañ takk seen diggante te liggéey liggéey daal mooy mooy mooy pay moom waaw man daal liggéey laa xam na man su ma toogee liggéey ma sa sama yaram day métti ah. waaw man moom liggéey laa xam ba ma juddoo ba léegi liggéey laa xam ngay wax ndaw ñi nga xamante ne nanguwuñu jug dóor waar dañuy toog naan may ma rek may ma may ma moom xam bu yàggee sa gémmiñ day xasaw ku la may tey bu subaa mu jéppi la wala la moo tax li koy daal moo wóor daal boo gisee Médina TV jugte ngir fekki ñu mel ni yow yaay mooy ngir xale yi nga xamante ne dañu toog ci biir kër yi wala ñi nga xamante ne dañu toog ci biir kër yi te xeeb ay liggéey y a pas de dama koy wax ne junni rek mën nga ci am ay junni yu bare bare bare bare bare bare boo jógee maanaam toog daal moo baaxul yàlla yàlla bay su tool sama yaay daana ma wax naa ma pëndum tànk moo gën pëndum ta kon yaay yàlla na yàlla defal la jàmm ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sànq maa la ci tooñ yàlla na fa yàlla yóbbuwaat ajaratu yàlla na fa yàlla yóbbuwaat xam naa yëfi dina dox El Hadj moo la yóbbuwoon waaye El Hadj El Hadj mel man tamit dina ma yóbbuwaat waaw man tamit dina ma yóbbuwaat El yaa yóbbuwoon Bin Fall mag man it ma yóbbu mag ah moom nee moo la yóbbu mag ah, bu yóbbu ñu àndaale boo ñëwee mën naa boo boo ñëwee ma tàggal la yonent bi. moo ma yóbbu woon Papa Diop maire de Dakar. maire de Papa Diop maire. waaw moo ma yóbbu woon suñu président. moo ma yóbbu woon. waaw nee bu gisee woy bi xolam day sedd bu ko dégloo nee na xolam day sedd danaan soxna si yokkal télé. waa Bine Fall euh, dañu bëggoon xam ne tey yii ngay def jën yu baax yii ngay def man bi ma ñëw bi may ñëw la ma commencé xeeñ. di ma xeeñ xam man damaa bëgg a lekk na ngeen ma baal nag yéen ñi nga xamante ne yéen ay sama kal na ma baal. Euh, Bine Fall yii nii ngay def nii ku ci bëggoon tey toog ca kër toog sa kër waa bëggoon ko te mënuloo déplacé nooy def. tey defar du bu baax jóg càq càq yi nga indil la. Ah, may càq càq yu lay yóbbu. waaw taximan yaa ngi fi scooter yaa ngi fi. ah waaw. ah dinañ jël sa numéro. taximan yi ñoo lay yóbbul su bëccëgee scooter yi yóbbul bu ñëwee nga fay leen. kon mi ngi noonu képp ku mënul ñëw fekk si Bine Fall mi nga xamante ne dafa xew si jamono. borom mayonnaise yi borom frites borom salade yi képp ku ko bëgg mën nga toog sa biir kër yaa xam foo nekk boo wootee ci biir numéro yi dana danañ la andil li nga soxla li nga fàtte nan la. moom laa tàmbalee de. ah waaw bintu bintu Fall bu El Hadj Keita képp ku toog sa biir kër bëgg ci yu baax yi muy defar maanaam frites yeeg mayonnaise yeeg ak yeneen nu ni mel am na xeetu baax baax yëpp mi ngi fi képp ku ko soxla numéro bi dina jàll ci suuf. boo wootee danañ la fekk fa nga nekk ñëw jox la ko ci lu gaaw Bine Fall ana lan ngay wax ci El Hadj Keita sa doom boobu ndax tey duñu duñu duñu dem ci émission bi jeex te duñ ko wax ñi xamoon nañ la nag waaye bi la El bi la wooyee bi la El lañ la xam ndax tàgg boo gis am na jàppal diw El Hadj Keita. ah di ko sant rek di ko gërëm. di ko sant di ko gërëm du ma dëkk si jóg si di ko sant ndax tey xale yu ndaw yi sax dañuy toog seen kër bu fekkee biñ faal biñ faal biñ faal élage moo tax États-Unis Amérique fu ne la nit du jóge di ñëw dama bëgg a dem si biñ boo nee cëpp Sénégal sa xel lu muy nekk restaurant buñ la woon doo ko bëgg mbaar mi ngay bëgg di maamu ñaaw ngeen ba rafet bëre bii la la fi ngay bëgg a ñëw <laughs> Eh, waaw dégg ngeen loolu ñaaw ngeen ba rafet bëri. mooy mbaar mi. Bin Fall. waaw man nag maa ngi doog a xam ne da xew nag ñaaw ngeen ba rafet bëri. waaw mooy mbaar Bin Fall fi lay xewee fii ci Soumbédioune. ci Soumbédioune lay xewe mbaaru El Hadj Keita baa ngi xam nga affaire yee tax rek mbaar mi mel nii ba léegi mais sinon El Hadj na si mbaar mi yàgg na benn jógam rek xëyam rek xajul si mbaar mi mais nag maa ngi sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla na muñ rek léegi affaire yi jeex. bu jeexee rek xéewal moo siy topp El Hadj yàlla defal ko lu baax parce que dafa bëgg nit dafa baax dafa yaru dafa respecté nit te loolu mooy nit respecté nit te boo respecté sa waajur si mbedd si si biir kër yi boo génnee koo dajal da nga koy respecté loolu mooy ñaareelu turam. ci nan nga koy jaayee maanaam da koy jaay dafa am prix yi ci lan lay varier entre fan ak. fan la. ngay jaayee 1000F la ba 5000 ba loo bëgg a am na. 1000F ba 5000 ba 10 000. waaw loo bëgg a am na. loo bëgg rek am na mais la commencé loo bëgg rek am mais ngoon gi moom jën rek moo am. ngoon gi fii rek mooy am. yan ba mu baax yan xeeti jën. jën yu baax. yan ak yan. doraat bu fuuf. mosul xam jën day varié du toujours ngay am benn jën chaque jour jën bi ngay mais jën bu ñuul moom du ma ko jaay. waaw ah, jën bu ñuul rek nga dul jaay waaye xeeti jën yëpp da nga koy jaay soo bëggee ma lakkal la danga may teel ma lakkal la ba mu saf la jox livreur bu ah, man loo ma sant rek daal man daal togg rek laay ma toggal damay ngi noonu waxoon naa la ko waar wi fii la lépp di xew képp ku bëgg sa produit jar wala nit ñi gis ko na ñëw ci biir Medina boo ñëwee ci biir waar wi danañu gis say produit nit ñi danañu ko jënd Medina TV boo ko déggee rek sa xel dafay dem ci Medina Medina boo ko déggee sa xel dafay dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax ñun lu ñu laal mu barke wax naa la ba taay na la man Abdoul Aziz Niang ci da lu ma laal rek mu barke sunu borom def na ko ngir yonent bi sallallahu alayhi yaay sa kàddu gu mujj ci biir Medina TV. di sant El Hadj rek di ko samay ñaari waajur ndax tey ma mën ñoom la ma jàppale. nga may ñaanal ngay sama sëriñ nga may ñaanal ngay yokk ba di ko yëg bu ma àndal di ko bokkoon may ñaanal sama yaay gudd fan ak wér gu yaram Elhadj ma koy ñaanal affaire yi gaaw jeex ba mu commencé waat activité am nekk si leneen waaw loolu laa koy ñaanal ñaanal daal xéewalam yokk daal xéewalam daal damaa at bi moom damaa bëgg mu sentir si boppam bu baax. incha allahu rabi El Hadj Keita yal na yàlla defal la jàmm sunu yaay bin Fall. loolu la la ñaanal ñu nit waa Médina TV loolu lañ lay ñaanal ngay sunu sag ñu lay bégg di la ndamoo di la sagoo di la tiitaroo wax naa ba taay ne suukar sa suukar la dàqee ñun ci doomi Médina yi la ñu far yàlla na yàlla defal leen jàmm mbokk yi ñu ngi woon fii ci Soumbédioune mu nekk place boo xamante ne ñëpp xam nañ ko di terre bu màgg nekk fii ci biir Ndakaaru nit ñi nekk fii di fi bay seen waar ñëpp ngi fi defarkatu moteuru gaal yaa ngi fi taximan yaa ngi fi ñi nga xamante ne dañuy jaay ay kees ñu ngi fi bépp xeetu liggéey rek boo ñëwee di ko fekk fii ñu ngi daan doole y a pas de sous-métier ngi woo ndaw réew waaye ndaw yu Medina ñëpp ñu takku jóg liggéey xam ne liggéey jaamu yàlla mille 1000 francs rek boo ko amee mën nga ci déparé mbokk yi waar waa ngi nii ci biir Medina TV.